bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk julli di noo ngi sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala di julli ci yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu ci lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk yi bu ngeen gisee jataay bi tey euh, vidéo la boo xam ne dafa jëmaat ba tey ci solidarité waaye nag am nay leeral inchaa allahu taala ca gannaaw ca weeru février tombeek juróom-ñaari fan ci février bi passé 2023 defoon na benn vocal mu jëm ci groupe bi nga xam ne moom la ñu dippee ahbabul quran maanaam soppee alquran yi vocal bi moo nekkoon sunu mbekkum mbokkum taalibe bi di jàngale alquran fële ca Touba ñu di ko wax Serigne Mbacke Silla dafa bindoon lu bare bare bare bare bare ci lu jëm ci boolay alquranul karim da ci bindoon lu baree baree bare garde ko gannaaw bi ñu xalaatoon ni kat lii am na solo am solo goo xam ni faaw ñu tënk ko ca ab téere man koo génnee dongay alquran yëpp man cee jariñu bi ñu ko xalaatee nag ñu defoon ci ay gëstu waxtaan ceeg ay imprimerie ba dajeeg benn imprimerie bu nekk foofee ca Touba moom moo xamal ñu ne kat pour ñu def ko ci ab téere faaw dana liggéey lu mat cinq cent téere waaye nag ci six cent mille la koy defee ñu d'accordoon ci ma defoon vocal nag sànni woon ko ca groupe ba ngir sàkku ndimbal ñu mën a fexe ba dajale six cent mille yi man cee am juróom juróomi téeméeri téere yooyu ndax gannaaw bu téere yi génnee la nekkoon yéene mooy def ko waqf fi sabilillah maanaam may ko képp koo xam ne yitte woon na ko tadib jullit moo xam dongab alquran la wala koo xam ne day jàngale alquranul karim bañ demee bay dajale xaalis booba lu jiitu muy mat ñu gisaat beneen waay boo xam ne day liggéey ci imprimerie mu xamal ñu ni kat moom day mille téere maanaam junni mën na koo defaree ci sept cent cinquante mille léegi ñu xalaat kon bële moo gën a yomb woyof ci ñun te gën a bari ñu waxtaan ak ku njëkk ki ba ñu waxtaan ak moom ba juboo mu nangu ñoo bàyyi ñu dem ca kële bañ demee ca kële waxtaan ak moom xamal ni ko kat buñ noppee ab waqf fa la téere bi di doon incha allah mu ni bàyyi na cinquante mille kon mille téere danañu ci defal sept cent mille mille téere ba ñu dajalee ba xool lañ am mu nekkoon quatre cent mille ñu dem jëbbal ko borom imprimerie bi mu defaral ñu ba junni téere yépp noppi na alhamdulillahi rabbil alamin waaye nag daf ñu ca jox fukki téere dong ni ñu nag bu ñu ñëw di jël si junni téere yi ñu mottale ko trois cent millions trois cent millions yi nag moo jàppandeegul ñu bëgg a defaat beneen vidéo nag incha allahu taala ci képp koo xam ne mën na ca jàpp fii sabilillah nu mën a mottali loola génnee junni téere ya ndax bu génnee it dañ koy def wàqfu ci doomi jullit ñi incha allahu ña nga xam ne ñoo ngi sàkku xam-xamu alquran wala sax ñu di ko jàngale ndax am na solo téere bi nag moo nekk nii maanaam jaamiul bayaan fii mutashabihaati alquran mbokk mi mooy ki nga xam ne moo ko bind téere bi nag boole alquran yi la ca dajale alhamdulillah xanaa damay ubbi benn page rek pour ñu mën a comprendre masalan bismillah su ma ubbee nii danaa dajeeg baatub masalan wa bisa maanaam wa bisa boo ko doon xool nee na am na fukki yoon ak juróom ci alquranul karim ma liiral la ci ñett maanaam summa adtarruhu ila adabi nnaari wa bisa almasir beneen bi sa tuxlabuuna wa tuxcharuuna ila jahannama wa bisal mihaad ñetteel ba wa mawaahumu naaru wa bisa mathwa zalimin ma ubbi feneen ma defaat ni dajeeg baat bu ñuy wax min dakarin aw untha nee na ñëw na ñeenti yoon ci alquran min dakarin aw untha baadukum min min dakarin aw untha wa huwa mu'min ñetteel ba min dakarin aw untha wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayiba ñeenteel ba min dakarin aw untha wa huwa mumin fa ulaika yadxuluuna aljanna ah mu ko tëj ah, min dakarin wa unsa bii min dakarin aw unsa la bii min dakarin wa unsa kon bi benn yoon la ñëw ci alquran muy min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban ba qabaila li taarafu kon téere bi loolu moo ci nekk bépp baat boo xam ne bari na ci alquran rek da koo indi wax la ñaata yoon la am ci alquran ak fan ak fan la nekk mu tënk ko ci téere bi jaamiul bayaan fii mutashaabihaat alquran ñu bëgg cee génne junni téere tasaare ko ci doomi jullit ñi nga xam ne ñi ngi sàkku xam-xamu alquran moo xam muy donga bi mbaa muy seruñu daara bi incha allah kon bu nu amee trois cent mille rek jëlee ko ci ñi nga xam ne ñi ngi def fii sabilillah incha allah lool dana mën a jàpp ne ñu tas ko ci jullit ñi kon ñu ngi koy sàkku ci képp koo xam ne noppi na ngir liggéeyal suñu borom tabaraka wa taala yàlla waxoon na ci alquran ni wa ma anfaqtum min shay min nafaqatin wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu nee na lépp lu ngeen joxe fi sabilillah yàlla dana leen ko remplacer waatal loo xam ne moo ko gën yàlla waxaat ni wa aqridu llaha qardan xasanan nee na na ngeen lebal suñu borom tabaraka wa taala bor bu rafet bu ko defee yàlla fa yudaa'ifuhu lahu adaafan kathira dana leen ko fulandil ba mu gën a bariwaat ci yéen kon képp koo xam ne noppi na ngir participer ci loolu ngir junniy téere yi jàppandi mën naa jëfandikoo ci numéro bii masalan 77 052 98 41 numéro la boo xam ne képp ko ci woote na jot suñu mbokk mi di euh, Serigne Mbacke Sylla wala ku ci bëgg a participer ci jaare ko ci Wave wala Orange Money incha allahu taala yëpp jàppandi na turam mooy Serigne Mbacke Sylla 77 052 98 41 ku ma ci woo man mi yit man seen mbokk benn Omar danaa la ci leeral ba mu gën a yaatu incha allahu taala kon loolu moo nekkoon video bi mbokk yi nu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jàppandil ko ci ñëpp mu yombal ko ba mu yomb di ñaan yàlla képp ku ci participer yàlla na ko ko yàlla def ci misanul xasanaatam def ko muy sabab ci tabbi aljannaam koo xam ne it yàlla dogal na nga bëgg a participer te yombul ci yow boo mënee jàllale vidéo bi incha allah ba mbokk jot ci it dana am solo lool lool wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu